Mamadou Sy Albert ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax. yow journaliste nga sa xam-xam yi itam màcc ci li jëm ci wàllum politique Mamadou Sy Albert li ñuy njëkk a door suñu waxtaan bi bokk na ci décision bi nga xam ne conseil constitutionnel daal na koy jël ni kiy démb daanaka joxe sab ak dat ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars président de la république itam ca conseil des ministre jàpp ab date ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars ci li jëm ci élection yi mel Amadou Sy Albert euh, dañu jàpp ni li nga xam ne moo jëm ci dialogue bi moon kon euh, wunduwul dara bu fekkee tënku nañ ci li nga xam ni itam jot nañ ko ni démb ci ay xabaar. waaw mën nañu wax ne que wunduwul dara ndaxte conseil fi mu nekkoon démb loolu la loolu la waxaat. Euh, loolu nag mooy date élection bi la budd mu am balaa Macky Sall di jeexal mandat am 2 avril. bon euh, que processus électoral mënuñu ko bamtuwaat euh, que président aussi dafa war a jóge ci nguur euh, à partir de deux avril donc loolu lu mu waxoon loolu waxaat léegi nag mën nañu jàpp ne que président Macky defoon na dialogue dialogue bi am na lu mu doon laaj mooy dàq dat élection bi ba mois de mois de juin loolu loolu moom antul que mhm. euh, jaloog bi aussi euh, proposé woon na pour ñu reprendre processus loolu mhm. itamit euh, antul mhm. mën ñu wax ni que fi mu nekkoon daal fi mu tegoon tànkam foofu la teg tànkam ba léegi d'accord alors mu jox euh, dogal ne dix-neuf candidats yi ñoom ñoo war a dem ci élection yi nga xam ni itam euh, président de la république daan na koy jàpp le quatre mars ngir ñu mën a dem ci élection bi euh, wax itam ñi nga xam ni ñoom ñoo di spolier yi ñoom la ñu dugaloon la ñu jàppoon ni itam loolu mënta nekk kon dix-neuf yi rek ñoo mën a dem ci élection yi fala budda waaw loolu moom lu am solo ndaxte conseil moom mooy arbitre bi arbitre bi nag mënul euh, ne damay arbitrer li may arbitrer am na ay règles mooy parenage parenage bi topp na ko ba mu jeex bu mu paree ci parenage mu dem ci contrôle ak vérification dossier yi mu laaj bu paree loolu mhm. génn liste list boobu suñu constitution moo ko may euh, conseil suñu code électoral moo ko may euh, sañ-sañ boobu. Mhm. donc bu xasee ba génn liste bi mënu ci kenn mënu ci tax mu dellu ci. Mhm. loolu euh, lu lu lu nit ñi war nañ ko jàpp. d'accord que que que su mu taxaw bon loolu mooy yoon. loolu mooy sàmm aussi processus électoral. defe naa daal euh, ñëpp war nañu comprendre que loolu mooy yoon loolu mooy dëgg loolu mooy processus électoral. Mm-hmm. am na euh, noonu lay demee am na ñu kontaanul am euh, am na réclamation mais loolu warul tax ñu bamtuwaat processus électoral bi. Mm-hmm. Euh, léegi fi ñu jublu nii mooy élection maanaam élection est-ce que euh, lépp war na mën a yemb naanaam war nañ mën a xaar tey ay euh, disposition yi nga xam ni conseil dina ko joxe ngir ñu mën a dem ci élection yi même bu fekkee ni fukki fan ak juróom lañ war a mën a def campagne xëy na temps bi mayewu ko fi léegi daal lu ñu mën a wax mooy jeu bi leer na ak candidat yi itam lu ñu war a mën a proposer askan wi. waaw jeu jeu règle yi moom leer na wante jeu mooy problème euh, bu ñu war a régler nii nii. <laughs> mooy date bi xam nga ñu ngi wax vingt quatre euh, ñii ñu wax trente et un. defe naa président de la république moom moo yore ministère de l' intérieur. <laughs> ministère de l' moo war a organiser. Euh, matériel bi bulletin yi sécurité bi loolu président ak conseil war nañu jàpp benn date mu nekk une seule <laughs> une date officielle léegi président nag moo war a jël euh, motuwaay pour mu am organisation matérielle et technique après loolu Sénat dafa war a taxaw euh, conseil constitutionnel léegi nag moom loolu mooy euh, moo koy jox doole pour mu nekk arbitre dëgg-dëgg mooy que matériel bi ñëw na Sénat taxaw na yéen campagne électorale bi bés nangam ngeen di commencé bés nangam ngeen di pare euh, bu après nag temps d'antenne bi aussi comme euh, wàññi nañu bés yi il faut ñu am euh, benn chronogramme mhm. bon donc loolu mooy jafe-jafe bu nar a am mhm. est-ce que gouvernement bi xam nga gouvernement am tas nañ ko mhm, ngeen ci ñëw il faut ñu am ci lu gaaw gaaw ministre de l'intérieur ki nga xam ne am na expérience euh, élec euh, processus électoral contrôle xam ne bu ñu jël en tout cas ki nga xam ne xamul dara dara dara ci processus électoral. d'accord d'accord bon def naa loolu daal di question techniques et administratives suñ ci jubloo bon lan moo ci des mooy euh, candidat yi. kandidaa yi aussi dañu war a xam ne que lu ñu bëgg a xëy na duñ ko am. Hmm. mais il faut ñu am esprit d'adaptation mm-hmm. campagne bi même bu dee dix jours yow mi candidat mm-hmm. war nga am sa mm-hmm. sa équipe ba nga xool na ngay gérer ce temps d'accord d'accord mais Mamadou Sy Albert euh, laaj bi kay mooy parti démocratique sénégalais moom moo fubal moom moo laj yi itam ci mbir mi non PDS sax mënuñu wax ne football football PDS hors arbitre bi euh, joxe na liste bi joxe na date bi joxe na euh, règle bi yow ñu éliminer la tu es nga bëgg a changer règle yi dafa diis surtout que da tuumaale arbitre bi ah nga jëm a indi benn loi pour modifier sax constitution bi boo ci boolee euh, nag bon yow yow euh, gënoo ñeneen ñi nga ne il faut que coûte que coûte candidat jàll. Mhm. donc PDS lu mu sumb bon war na ko war na xeex ba bu mag la. Mhm. mais li mu li mu sumb moo moo diis. loolu defe naa bon joué na. xeex na mais euh, lu am ba am mooy que lu mu bëggoon amul échec la mmh. ñoom nag ñoo war a euh, saytu lu mmh. tax ñu euh, échec ak ñu xool fu ñu naka lu ñuy duggee ci campagne bi. d'accord alors information yi bokk na ci dissolution bu gouvernement bu Sénégal Amadou Ba moo nekkoon ilimaanu jëwriñ yi euh, président de la République sant na ko itam wàcce ko euh, ndax moo mun ko décharger ngir mu mun a dem campagne yi euh, maître Sidiki Kaba mooy jëwriñ ilimaanu jëwriñ gu yees gi alors laaj bi mooy. est-ce que yéexuñu libéré ki nga xam ni moo di Amadou Ba candidat coalition Benno Bokk Yaakaar est-ce que dina am jot boobu tey bu fekkee ni fukki fan ak juróom lañu war a campagne. non yéex na moom loolu am am euh, nga nekk premier ministre mu dese euh, pratiquement ñett semaine euh, nga ne ngay bàyyi sa poste premier ministre loolu yéex na bon waroon nañ ko jël lu yàgg lu yàgg loolu aussi ci en tout cas ci. stratégie nguur bi euh, des na waroon nañu euh, jël décision dégager Amadou Ba buñ ko xasee ba tànn mu nekk candidat APR ak euh, Benno waroon na am quand même temps pour pour def campagne am bon loolu moom moo gënoon ci moom bon léegi nag euh, situation bett na président bett na amaduba ñoom yaakaar nañu lu gën mooy mu bàyyi euh, fonction premier ministre bi mu dem ci campagne bi. bon mais léegi nag euh, temps bi xat na bon Amadou baax aussi euh, am na ay jafe-jafe ci biir parti APR am na jafe-jafe ci ci Benno. bon loolu ay gàllankoor la. Mhm. léegi nag moom moo war a xam naka la naree def dem defee campagne même bu fekkee ñenn ñi ñu ngi koy critiquer le Mame Mbaye Niang Thérèse fay euh, ku nekk nga koy critiquer ci biir euh, Alliance pour la République léegi nag naka la war a mën a taxawee ngir tënk ñoo ñëpp ànd ak ñoom ci liggéey bi tey parce que nga xam ne du yàgg. ban daal euh, defe naa Amadou Ba warul warul bàyyi xel ci ñooñ ki nga xam ne jàppalu la àndul ak yow di la critiquer kooku ma am euh, situation bu mel ni dama lay euh, def dama lay bàyyi ci fi nga nekk ma dem wuti ñi nga xam ne ànd nañu ak man <laughs> donc Amadou baa dafa war a jël responsabilité moom mooy candidat bi amatul benn euh, benn keneen ku muy waxal <laughs> à part ñu ànd ak moom <laughs> donc dafa war a jël équipe de de campagne bon xam euh, naka la nar a taxawee. Mhm. Euh, et je pense que warul euh, bàyyi xel daal ci ñi nga xam ne ànduñu ak moom nañ ko critiquer te wóorul sax ñu votel ah ko kooku jarul ngay perte sa perte sa temps. Mhm. léegi nag c'est vrai que dafa war a wax ak dëgg ak benno mu xam dëgg-dëgg fu nekk euh, naka la nar jàppale Amadou Ba. Euh, je pense que loolu moom lu ko lu ko war la. d'accord ci ci beneen angle Mamadou Sy Albert journaliste nga analyste euh, ngay itam xeltu ci wàllum politique bokk na ci loi amnistie bi nga xam ni ni ki démb daan nañ koy adopté ci assemblée nationale loi bi finalement ci kan lay gën a profité. ah defe naa ci président Macky Sall lay profité. loolu loolu moom loi d'amnistie président de la république kot moo am sañ-sañ euh, ne damay def loi d'amnistie Macky nag lu ko tax a jóg mooy que xam na ni day dem day jóge ci bopp nguur gi mënul président mënul nangu jóge ci nguur bàyyi ay prisonnier surtout ku mel ni Sonko comme chef de l'opposition militant Pastef ñëpp ñuy ngi laaj ñu libéré leen loolu xel nangul président dem bàyyi gannaawam lool donc loolu loi bi euh, moom day sàmm euh, ëllëgam euh, ak aussi liberté que moom xam na ne ko bu leen bàyyee au moins démocratie bi dina dina gën a dal nit ñi gën a dinañ dem di toppatoo yeneen bon léegi defe naa loi bi daal intérêt Macky Sall angi ci ñi nga xam ne ñu ngi ci kaso aussi am ñu intérêt léegi nag euh, lu des loolu ku ñu nar a fal moom moo war a xool naka la ñuy def ba Sénégal gën a dal. Hmm. Euh, def naa loolu daal hmm. def na wàllam bon am na euh, buñ koy critiquer c'est normal mais ku nara a ñëw moom moo war a xàll yoon bi. Hmm. Euh, euh, maintenant Macky Sall su mënee dimbali kooku xayrun mais su fekkente mënul mais quand même euh, ñu nar a tànn. Mhm. defe am na responsabilité bu rëy. Mhm. pour apaisement social réconciliation pardon loolu yombul. Mhm. de bu fekkee ni famille victime yi ñu ngi taxaw ne ñoom itam am nañ position ci mbir mi baale wuñ nanguwuñu li nga xam ni moo jëm ci am amnistie sibi waaw loolu mooy démarche président bi dafa yàkkamti am pression ci kawam ba xam ne que day day dem bon c'est normal que mu am ay victimes yi ñu ñuy gisee ñoom ils sont doublement victimes parce que tooñ nga leen yóbbu nga leen prison nga effacer lu ñu def te xamuñu ndax est yaa am dëgg wala ñoom ñoo am dëgg <laughs> ñoom dañu buggoon ñu àtte leen balaa ñu leen di baal bon loolu defe naa c'est normal victime yi euh, ne am na lu jaaduwul surtout am na ñu ci dee am na ñi nga xam ne ay blessé lañ mm-hmm. am na nga xam ne mënatuñu am sax possibilité liggéey mm-hmm. mais loolu état en tout cas bu pour nar a jiite Sénégal war nga bàyyi xel ci dossier victime yi. laaj bu euh, laaj bu mujj bi Mamadou Sy Albert bëggoon lañ ko laaj position ni ki démb taxawaayu parti parti Pastef ñoom ba ji biir plénière bi euh, question yi nga xam ni itam moom lañ doon sàkku ci lañ leen mën a tontu si la ñuy soog a jël position mais laata loolu itam gis nañ li nga xam ni itam moo jëm ci clameur euh, bi nga xam ni itam mu ngi leen doon xaar bu ñu jëloon beneen dogal tey naka nga jàngatee ñoom seen taxawaay bi ni ki démb euh, ca assemblée nationale. ndax xam nga bu ñuy wax euh, waxu Pastef président Pastef mu ngi ci prison secrétaire général mu ngi ci prison responsable région ñu ngi ci prison mais parti boobu ki nga xam ne moom moom la ñu gën a sonal ci ci violence mais mënul taxaw bugg voter loi d'amnistie même bu dee ñoom am na ci intéret xam nañu Macky moo leen ëpp intéret ci loi boobu fekk nag Sénégal yi ànduñu ak euh, loi d'amnistie bi donc politiquement Pastef position am dafay wone que ñoom am nañu maturité pour ne que ñu ngi ci askan bi ba léegi que ba léegi ñu ngi xeex nguuru Macky donc loolu moo tax ñu ñu voté suñu votoon oui mais lu leen di yàq kenn xamul naka la nar a toll. Mhm. Mhm. donc c'est un choix politique la la la la def. Mhm. pour euh, wane que ñoom parti d'opposition lañ. ci askan bi lañu àndal. Euh, je crois que calcul politique la nag nag day calculer politiquement. oui so Pastef euh, naka noonu. d'accord. d' accord Mamadou Sy Albert ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ni nga nangoo tontu sunuy laaj. maa ngi lay fay Bamba jërëjëf. maa ngi lay fay Bamba jërëjëf. maa ngi lay fay Bamba.